Mon euh, je suis le président départemental des communicateurs traditionnels. En partenariat avec le, district, centre de santé de Bambi, le district de santé de depuis 1997 dans le domaine de la santé. En fait, je m'occupe véritablement euh, sur instruction du médecin-chef du centre de santé, chez Cali, des sensibilisations dans le domaine de la santé. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, vous êtes euh, venu assister à cette session de formation concernant la lutte contre le coronavirus. Oui. En tant que communicateur traditionnel, comment est-ce que vous comptez donc, euh, vous y atteler pour que la prévention soit de mise au niveau de Bambay Je vous remercie, mais c'est un atelier extrêmement important, surtout pour nous qui sommes des communicateurs traditionnels et acteurs de développement. Euh, par rapport au au, coronavirus. Euh, cet atelier donc nous permettra d'abord euh, de mieux appréhender les méthodes stratégiques dans le domaine de la sensibilisation pour nous permettre quand même de nous rapprocher des populations étant entendu que le rassemblement est interdit. Euh, de nous rapprocher également des radios qui sont dans le département de Bambay, notamment Gorbe FM, Bambay FM, même la, radio communautaire d'Andangalma. Alors, nous sommes prêts à apporter notre contribution pour éradiquer cette maladie qui est le coronavirus, qui constitue un impact très dangereux dans le domaine de la santé de l'être humain. C'est pourquoi nous saluons à sa juste valeur ce que Dr Kali a organisé aujourd'hui cet atelier qui va nous apporter plus en tant que communicateur traditionnel. En tout cas, nous allons nous impliquer autant que faire se peut. Mais comment, oui, oui, notre implication sera d'abord de faire des sensibilisations à travers les populations du département et de la commune. Voilà notre implication, sensibiliser et faire une bonne sensibilisation. C'est-à-dire utiliser les méthodes de la communication pour faire percevoir notre, notre, notre message, parce que ce sera un message extrêmement important qui parlera de la prévention concernant la maladie du coronavirus. Voilà les méthodes que nous allons, nous allons, nous allons employer. waaw ci wolof dama koy tënk rek xam nga euh, nun euh, dañu nekk communicateur traditionnel santé bi euh, centre de santé depuis 97 waaye dañuy rafetlu tey lii nga organisé na ko woote ko muy atelier bi atelier bi nga xam ne mu ngi jëm ci euh, fegu fegu li nga xam ne mooy jàngoro coronavirus bi te wolof Njaay dafa ne faju fegu moo gën faju nuy gërëm kali bu baax ci atelier bi li surtout nun communicateurs traditionnels parce que jëlee nañ fi loo xam ne bu nu demee ci askan wi daanoo mën a wax ak ñoom lu loo xam ne mën nañoo mën nañ koo dégg muy seen njëriñ di suñu njëriñ mbir mi nag du communicateur traditionnel yi rek waaye na communicateur traditionnel acteur de développement la parce que comme fu na la nuy waxee te fu la la nuy dem war na noo mën a wax loo xam ne njëriñu askan wi la ba ëllëg nu mën a faagaagal faagaagal dama koy waxaat bu baax faagaagal faagaagal faagaagal jàngoro boobu la xam ne mooy coronavirus loolu daal mooy li nga xam ne mooy suñu taxaw suñu matukaay suñu taxaw ci li nga xam ne kali woote na ko ni di ko gërëm bu baax di ko sant vraiment di ko gërëm bu baax a baax parce que atelier bi mu woote tey mais waxuma noonu communication mais njëriñu ñëpp la ku fi jógee nag liñ la jox nag war nga ko mën a yekkal askan wi li tubaab di wax restitution war nañ ko mën a def waaye waxuñu rek ñu woonu ñu wax ba pare kali wax ba pendant deux heures de temps pour njëriñu askan wi ñu dem rek kenn ku ne nga tëdd sa kër déedéet nañ dem ci rajo yi nañ dem ci ni ñi nañ waxtaan ak nit ñi nañ andi li nga xam ne mooy suñu wareef waru warugar ak suñu wareef ci li nga xam ne mooy coronavirus ñu ngi sant ñëpp encore une fois Kali jërëjëf ñu ngi sant euh, euh, comité de santé bi développement sanitaire moom itam ñu ngi ñu ngi koy sant parce que ñu ngi ànd ak euh, Kali lëkkaloo Kali di liggéey liggéey bu rafet ñu ngi sant ñëpp yal na fi jàngoro coronavirus jógee. waaw gannaaw bi état bi jëlee na day tëj école yi ci diiru ñetti fan moom itam waaw dakkal na njàng mi ci alazar yi waaw yow nga ku ko jege di jege sëñ Mamor ana yan kàddu nga ciy wax ci foofu waaw sëñ Mamor Mbacké ambassadeur la dans tous les domaines rawatina nag coronavirus bi nga xam ni eh, jàngoro la joo xam ni eh, baaxul li ma wóor mooy sëñ Mamor Mbacké dina ci taxaw taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la wax ay dina waxtaan ak ay taalibeem waxtaan ak ñi nga xam ne dañ koo yaakaar koo xam ne da ngay jógee koo fi dem ba bitim réew di waxtaan ak askan wi di leen teg ci yoonu baax rawatina nag coronavirus bi lu mu ci dina ko def parce que xam nañu ko xam nañ générosité am xam nañ loyauté am xam nañ fullaam ak faydaam li nga xam ne mooy jëmale askan wi kanam loolu moom ñuy sant yàlla nag ndokk yàlla bi mu ubbee ab rajo loolu dañ ci mën a waxtaan ak moom di ko sant bu baax di ko gërëm di santaat nag soxnaam soxna Mambar Mbacké aussi dina waxtaan ak jigéen yi moom itam ci coronavirus parce que xam nañ ko xam nañ gëddaam xam nañ impact bi nga xam ne am na ko ci ci ci ci xale yu jigéen yi loolu daal laa bëggoon a wax euh, di la gërëm bu baax di la sant di gërëmaat kali bu baax di gërëmaat ñëpp yéen les médias la presse koo xamul na nga koy def na mu la dafa tax te nag doon naa la yekkal mu tuur ak yàkkamti la yéen kenn mënta dem bàyyi leen bu nit ñi waxee nit ñi dégg ko yéen a kon nu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax nag ngeen gën a lëkkaloo nag ak le médecin chef ci wàllu coronavirus yi en tout cas ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf jëf